dikkati naa fi mu ne day bu leen leeral ni yéen a ngi di tooñ ci réew mi amu leen njiit muy seen jàmm Walf Quotidien naan man Sénégal daal fi mu xanaa ay bouton nga doxal ndax président Macky Sall mbay njiit la dem na Amadou Ba dem na Amadou Mame Diop dem na ñoom ñett ñëpp nekk ñu Sénégal ku nekk moo mënoon wutu moroomam Sénégal ñoo leen bàyyee seen bopp kay tribune yéen kaay naan kon déet fi mu ne kay njàng meeg njàngale mi la ñu daal di bàyyee boppam secteur la boo xam ne mi ngi daal di sukuraat fa yàllaaxu moom njàngum Sénégal mi ngi ci coma diggante daara yi kawe yi ba ci l'école yi nga xam ni ñoo nekk ci digg doom ci réew mi fépp nekk ci jafe-jafe ci réewum Sénégal gouvernement gu Sénégal nag dëkkee ñun ay engagement yoo xam ne mësu ca respecté dara te ay milliards moo ne la ñuy jël de ni ki budget daal di koy dugal ci njàng meeg njàngale mi yéen kaayub des média bi naan maan waaye dara su dee ñi nga xam ne ñoo nekk ci digg doom bi ak ña nga xam ne ñoo nekk ci njàngale mu kawe moom ñi ngi armé wu ba dëgër fas yéene xeex songante gouvernement gi syndicaliste yi bu sàllar ñi koo fële ndongo yi daal di sàllar ñi koo beneen wet ga ñuy sàkku nag ñu daal di waaye tam ci njàng mu digg doom bi ñu respecté la nga xam ne ay engagement la ñuy tuñ tuñeel diggante Cheikh Omar Anne ak Moussa Baldé yéeni kaay bi naan maan bu ñu waxee nag njàng meeg mi dafa daal di lompoñ mu ne te syndicaliste yi koppar la ñuy daal xel mën na teey yéeni kaay bi naan kon déet rax ci ay jàngalekat yoo xam ne daal dinañuy manqué ci réewum Sénégal ba maar day taali waxtu woowu ma ni la ay milliards atu yàlla sàkk moom la ñuy nattal gafañ a nga xam ne ñoo ko séq njàng meeg njàngale mi ci réewum Sénégal bu ñu nee lompoñ na laaj bay samp moom moo di budget ba nga xam ne ña ngi koy wote joxe muy ay milliards jëm ci loole fu mu daal di surux yéene bi naan maan yàlla na xel faatu fa yallaahu 24 heures yéene kaay naan lu fi faat xel moo fi amul de ndax ko si deb ci boppam ma ngay xam le ni fim mu ne njàng maa ngi lompoñ ci réew mi dogal gi nu jël ni dañuy tëj daara yu kawe yi jekkul jaaduwul rafetul étudiants yi daañu perte temps d'étude ñu ci bari ci ñoom fa la ñuy jaare daal di bàyyi ndax dañuy ñam liggéeyantu yi daañu dëddu espace nga xam ne fa lañ doon jàngeeg di ca tàggatoo ko si deb ne bu ñu toogee Sénégal ñu xamal ne ñu téeméer boo jël ci réew mi juróom-ñaar fukk yaak juróom benn ya fanweeri at juróom la ñu am ñu xam le ni ñaari sénégalais yu taxaw kenn ko moom fukki at ak juróom ñeent la am tey jii ñooñee soxla jàng njàng meeg njàngale mi xajam ba mel ni cere juñ xëpp suuf kosi deb naan man yaa problème vox populi naan man kosi deb kay yemul foofu nee na fi mu ne ñi ngi jëm ci élection bu représentativité syndicale ñi ngi jëm ci kandu bu football ñi ngi jëm ci campagne électorale ngir ay présidentielle yëngu-yëngu daal di am na ki secteur njàng meeg njàngale mi lii bu dul cocktail boo xam ne mënees naa tax ndongo yu toog seen kër banque seen seen yoxo leneen mënu koo doon ci réew mi moo tax it fii ku fi ñëwati naan da nga yóotu sunum réew faaw nga wax nag lan nga naral suñu ndongo yi ngir ëllëg lanket ko di ñee naan man ëllëgug Sénégal de ci partenariat ak France daal dinañ koy xaatim ni ki démb séminaire intergouvernemental franco-sénégalais la ñu amal ca Paris relation ci wàllu koom diggante Sénégal ak France ñu daal di koy defar ca la xale ya naan fii dëgër naa lanket ko di ñee naan man këng-këng ngay wax diggante Sénégal ak France lu toll ci juróom fukk juróom benn ci convention nañ ko lu ci junni téeméer ci milliards ñu dugal ko fa phase bu njëkk bu teer France bu ca sii sot Sénégal jël na cay engagement laas yéene kaay naan kon xaatima ci nañu waaye ñu xaatimoon daaw ci waxtu wi it ma nga fi ci ay projet yoo xam ni séqoon nañ ko diggante Sénégal ak France Mimi Touré naan dara lu njiit njaag ci coow li Matignon ñi nga xam ne ñooy suñu partenaire ci wàllu koom nekk xaritu Sénégal ñoom France waxtu wi nga xam ne taarixu Sénégal dafa ubbeeti beneen page ñu war a tëddee njaaxaanaay ni yaay seex waxtu woowu ñoom France ci boppam présidentielle la xanaa lii mooy jeng Dakar Times naan kon cas lii xeeñ diggante Sénégal ak France 2024 day neex na Walf Quotidien naan kon lii xeeñ ci Anta Babacar Ngom it neex na Anta nee na gannaaw ba mu tojee Casamance fas na yéen a dem ci bët gànnaaru réew mi jàkkaarloo ak sénégalais yi wax ak ñoom dëgtal leen a programme am l'observateur naan kon fi mu ne day opposant ci réewum senegal moo gën a métti xare coow la moom moo di képp ku doon opposant jaar fi laataa ngaa jot réew mi day daj nga lu mu ci taal bi jiiñ nan la it lu nu mës ta jiiñ kenn saa bu nekkub dossier am ji ñoon jiñoon na fi Abdoulaye Wade ay fonds libyen président Macky Sall ñu jiñ ko wàllu blanchiment d'argent moom Ousmane Sonko tey ñaar fukki millions de dollars moom la ñu xamle ni moom la ko waa Qatar daal di sédd ngir mu daal di déstabiliser réew mi tribune yéen a kaay kon campagne électorale ak i jiñaate ñoo baaxoo campagne électorale bu réewum Sénégal ak yàqal ay politiciens ñoo daal di àndoo daañu leen xas daañu leen ŋàññ daañu leen wax wax yoo xam ne tegginewul ñoom opposants yi daañu leen jiiñ tëjum kaso dana ca am daanaka daal kàddu gudul kàddu jinne opposants yi daañu ko dégg ci réewum Sénégal libération yéene kaay naan man en tout cas lii bu dakkul daanaka opposition bu Sénégal mënees naa jeex Benno Bokk Yaakaar ma ngi cay ron xeeri daal di yóbbu ci gafaam vice consul bu Sénégal ca ay Aïssata Dia daal dinay jël faama soo bu parti démocratique sénégalais indi Benno Bokk Yaakaar ci waajtaay élection présidentielle yi vice consul ba daal di nappee ci géeju parti démocratique sénégalais ka ñu dippee gaynde Karim Meïssa Wade daal di ñëw fekki Benno Bokk Yaakaar lii lépp nag sabab gi mooy may doole boobu boobule coalition boobule tribune yéene kaay naan maan kan mooy may doole ñi nga xam ne ñooy jaay essence ak ci réew mi lu toll ci téeméer ak ñeen fukki milliards moom la leen gouvernement gu Sénégal daal di yoreel te boo moytul secteur bi dina lompoñ ci mim réew libération yéene kaay naan maan la nar a lompoñ kay mooy crédit mutuel bu Sénégal ña ngay ronxee xaalis bi ci anam woo xam ne ñaaw moom lañ fa ronxee ci xaalis kenn xamul nu mu toll ñeent ci ay doomu aadama jàpp nañ leen ci ci ay pré xam ni ndekete dara dara baaxu ca soxna ya joxe seeni carte d'identité di xaar ñu financé leen ndekete loolee ci ak directeur wa ak soxna sa yor natt wala jëm CMS Colobane ak Fass laal nañ ko CMS Tiwaawoon lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak fukk ci ay millions ñu daal di ko fay yóbbu ay carte carburant ñu koy fraudal ca wakaam daanaka juróomi milliards ci boppam la ñu ne moom la ñuy laam-laamee jébbal borom daara ji li borom daara ji moom moom Serigne Mansour juróom benni fan ci weeru décembre atub 2006 la fekki woon baay ba Seydi Aboubacar Sy moom surtout alaaji Malick bi nga xam ne Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ñaanal na ko waa Casamance fàtte wuñ ko ndax nee ñu defoon na Casamance googe ak yitteem tribune yéene kaay naan man professeur Bara Ndiaye doyen bu faculté bu médecine daal dinay le ni lu toll ci ñeenti téeméeri junni ci xale am nañu cancer ci àdduna wërngal këpp laas yéene kaay naan man waa jii day doomam bu ndaw moo am cancer tailleur bi daal di soppeeku sàcc